mbokk yi di rafetlu noonu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ñu àgg yéen kon ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës liggéeykat yi yoon yi ni dañu leen agressé ñaari fan yi banku loxo nag eh, lañu ñu daal di dogal la ko dale tey jii ngir naqarlu teq gu ñu ni dañu koo teq seen i payoor te teguwul fenn ñu bokk ci kuréel gu ñu taxawal démb ngir sàkku ci eh, nguur gi kon mu respecté accord ya mu signé woon ak ñoom 2014 enseignement supérieur secondaire moyen ak wér gu yaram ñanga ca SAES SOS grand cadre SUTSAS ak SUTJUS ñoom ñoo taxaw ngir boole seen doole jàkkaarloo ak gouvernement bi Jurbel campagne bi ngir waaw ju yey bisub 20 mars ña nga fa Aminata Tall ak Moustapha Cissé ñoom ñoo fa wàcc ci terrain bi waxtu woowu ministre bi ñu dénk wàllu ko ndaw ñi moom yokku ca boobee campagne lu jëm ci ay tuuma yoo xamante ni xëy na ko tek ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay kilifa ci opposition bi naka noonu société civile bi des na si diggante ba kër El Hadj Pathé kon foofee jàpp nañu ni lépp fa manqué askan wa sonn loolu euh, ñu jàpp ni kon dafa mel ni sax dañu leen fàtte euh, ci li ñu dañuy defaraat réew mi defal nañu leen it reportage euh, ci lii di dibitëri yi dibitëri yooyee ñu gis ni lu nit ñi soppoon la daa fa daje waaye léegi ak tension yee KWC yi xeeti feebar yooyu ñuy wax xam na ñoo xam ne ñoom tiit nañu ca xaw caa dellu ginnaaw waaye am na ñoo xam ni moom dara mënta te ñu won ko mënta tax ñu won ko ginnaaw dinañu ci ñëw ak pexe yi borom dibitër yi tekk ngir attirer clients yi buñ ca toftalee yéene kay yi muy li fi jot a ñu fas ko yenee faram-fàccee dellu rafetloon bi ak télévision Futurs Médias ni ñu leen ko waxee ñaari fanu banku ko loxo moom nag euh, la ñu dogal talaata ak tey jii jàpp àllarba syndicat bi nga xamante ni euh, moom moo ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu ko yoon di naqarlu euh, seen i situation waaye te bëgg nañu ñu fay leen seen i ndàmpaay ak heure supplémentaire ñu xam ne nag ni ñu ngi woo waxtaan ministre bi yor wàllu fonction publique laataa ñoo dem ci grève générale janoo ak waay taskatu xibaar yi doxee eh, kon ca bisub eh, tey jii des na ci eh, dellusiwaat ñoom surgis bokk nañu ca kuréel gu ñu taxawal benn cadre unitaire syndicat yu yëngu ci wàllu njàngale mi ci wàllu wérgu yaram ci wàllu yoon ñoom ñoo ca lëkkaloo mu di SAES grand cadre SUTSAS ak SUTJUS accord yi nga xamante ni nguur gi xati woon na ko ak seen diggante 2014 ñu signé ko la ñu bëgg nag gouvernement bi taxaw respecté ko dëppoo ci ak i kàddoom Aminata Mbaare Sow Modou Diop. waa SAES waa Grand Cadre waa CUSEMS waa SUTSAS ak waa SUTGIST juróomi syndicat yu bokkut secteur ñoo fas yéene boole bokk benn xeex fexe ba gouvernement bi respecté engagement yi mu signé woon ak ñoom ci atum 2014. même bu ñu bokkul secteur d'activité bu dee xeex moom surtout que ay respect d'accord moo leen boole yaakaar naa ne loolu naturellement dañu war a ànd fexe nag ba euh, jox seen xeex bi. loo xam ne ni dayo boo xam ne amu ko woon xëy na buñ ko defee ñun nag ku ci nekk sa bor. front sociale boobu nag moom mooy jël en charge revendication yi nga xam ne nii gouvernement bi nangu woon na mu nekk ay accords yu réaliste ak yu réalisable te appliqué wu ko. wu ñu sax ci front bi mooy di am bés yoo xamante ne journée la yoo xam ñëpp dañu xam ne liggéeykat Sénégal. dañoo mer dañoo amee jafe-jafe. ay syndicat daal di boole seen doole donte bokkuñu jëmukaay. négociation amatul li des mooy ñu fexe ba accords yi ñu mandargalal leen ñu ñu ñu ni bu doon poñ bi lii la dañ ko war a euh, euh, respecter maanaam dafa war a entrer en vigueur telle date loolu mu am loolu la syndicat yëpp di laaj kenn laajul fi négociation il faut que mu leer. front bi moom kenn xamul ba kañ la front bi daal ñu ngi koy commencer mettre en en place donc front bi daal finalement front wu liggéeykat yi yëpp la. voyage bi ñuy def nii suba gannaaw suba boobu SUTSAS bokk ci mënu ko cee bokk parce que SUTSAS kuréelam bi alarba lay réunir. bu réuniroo alarba aussi am na beneen kuréel bu gën a mag bu ñu war a convoqué parce que ñun bu ñu war a dem grève dafa am yoo xam ne dañ koy fàttali boor ba pare door a dem ci grève. bu weesoo seen xeex boobule ñu bokk kenn ku ci ne ci syndicat yi am nga say revendication yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp. on n'écarte pas créer quelque chose d'assez solide un front boo xamante ne. unité organique mën na jëlee mais en tout cas loo xamante ne bépp liggéeykat bu am jafe-jafe sa secteur la woowee di nga am outil boo xam di ko mën a xeexee. seen premier plan d'action bi ñu nam amal ñoom ñëpp mooy ab grève générale àllarba gi ñu jëm mu mel ni nag ci université yi ci école yi daañu banque seen yoxo waaye tamit ci wàllu justice ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram nee nañu premier plan d'action bu njëkk bi duñ ci bokk li ko waral nee nañu faaw ñu dem waxtaan ak seeni ñooñ yu nekk ca base ba. grève général suba ci àllarba ji SYTJUST moom tàmbali na ko tey ji ak banque loxoom liggéeykat yooye ci wàllu yoon nguur gi la ñu bëgg la mu diggee woon ak ñoom 2014 ñu signé ko mu jëfee ko tey ñu ànd ci mun Maymuna Njaay ci seen jàkkaarloo ak waaye taskatu xibaar yi. liggéeykat yi bootu ci wàllu justice yëglu nañu li ñu xamle mooy dafa am lu bari lu ñu teq ci seen salaire te loolu warul nee nañ nag lii agression lañ ko duppee ba tax na dinañu amal ñaari fan yoo xam ni dañ koy grève ñu tàmbali ko nag tey jii. liy coow li mooy tey liggéeykatu euh, kër këru atekaay yi ëttu atekaay dañoo banque seen loxo ndax lan ab mer lañu am mer gi li ko sooke mooy seen payoor yi dañoo gis ne gouvernement bi chaque jour da koy wàññi te li koy wàññi mooy heure supplémentaire yooyu la dindi heure supplémentaire yooyu ñuy dindi ah ministre des finance et de l'économie moom moo ko décidé moo ne de syndicat bi nee na yëglu woon na jaarale ko ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu koom wante amul benn saafara. travail de la justice yëpp ministère des finances la ñu jàpp moom mooy ndeyu mbille gi ndaxte ñun ba ñu gisee lii muy ñëw duñu daan def chaque fois bu lii daan am ñu woo presse bi xupp ko mu bàyyi mais bi yoon sax dañoo dem def yëfu kilifa dañu koo bind lettre jox ko ko le 16 dem ba ci secrétariat particulier am tagal ko fa jox ampliation premier ministre. waa SYTJUST nee nañu bëgguñu kenn di leen këll-këllee fi ñu jëm mooy lëkkaloo ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu fonction publique bi yëpp bu ko defee ñu amal ab grève générale. ñun ñëpp administration sénégalaise la ñuy liggéeyal donc fonctionnaire yëpp yi nekk ci ci ci réew mi am na mébét yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te bu jotee ñun ñëpp dinañu booloo pour xeex suñu ñu sàmm suñu àq ak yelleef mais justice moom xaaruñu kenn ci li nga xamante ni seen problème la ñoom dañ ñoo agressé dañuy jóg taxaw ba képp ku ñuy àndale di ñu fekk ci niki talaata gi kon boog àllarba itam du am audience loolu la Sytjust daal di xamle nee nañu duñu seral benn yoon li ñu bëgg rekk mooy seen àq ak seen yelleef ñu jox leen ko. ñu daal di wéy kon ci wàllug euh, xibaar yi ak euh, UDEN ñoom ñi nga xamante ni nag démb janoon nañu ak waaye taskatu xibaar yi euh, wax ci téeméer ak ñaar fukki millions yu ñu leen jiiñ ni dañu ko détourné secretaire général bi Awa Wade xam le ni ñoo ñee leen di joxoñ baaraam ñoom ci seen bopp ñoom ñooy ñu ñu war a yuuxu sàccee yi mu daal di wax it ci xaajaloo gi am ci biir syndicat jàngalekat yooyu ni kon weneen wàll wi teguñu ko fenn pafara ñu ngi jafara bañ a nga fa woon ay sàcc yu naan sàccee loolu la waa Idène tontu nag ñi nga xam ne ñoo leen di jiiñ wàllu détournement di beneen wàll wi. dafa am ay tuuma yoo xam ne dañ ko teg teggi teg ci suñu ndond muy nee nañu cent vingt xaalis boo xam ne non justifié la ñun nag li ñu xalaat ci suñu biir dañu ni sàcc saa ngi yuuxu sàccee puisque bi ñu jëlee syndicat bi li ñu fi fekk mooy xaalis bu ñu sàcc bu amul benn sikki sàkka te ca biir tribunal ña wax ni ñoo sàcc xaalis boobu am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir ñi yuuxu sàccee. xaajaloo boobu nag li ko indi ñoom jàpp nañu danoo bañ ñu auditer leen te nag UDEN danoo am gestion bu baax. ñun ñu def boobu audit audit ba bañ ko defee loolu la suñu détracteurs yi nga xam ne dañoo sàccoon xaalis ba bële jël ni UDEN dañ fi luubal xaalis te loolu ñu wax bu leen toppee ci seen raisonnement sax. rapport d'audit boobu ay département la génne yoo xam ni dafa ni département tel ak département tel war nañoo indi tel justif wala tel justif te ci biir loolu ka jiite ñële di wax presque liñ ci am kenn xamul nu mu toll te bosam sax am na ci ñu jaaxal. ci boobu la xeex nag ñu am jàppale bu mag ñii di grand cadre te woon fa ne leen daal lu ñu bëgg mooy ñu boole doole yi. fii dañu fa gisul ko fi jar. ay instance teniroon na def nañu congrès publiquement ñëpp yëg ko instance di tenir soo amee lu la naqari dangay ñëw si biir wax ko fa xeex ko fa ndax ñu mën a joxe exemple jeune génération yi pour que syndicalisme mën a jëm kanam pour que ñu mën a régler situation jàngalekat yi. ñi bokk ci IDEN sax ñu génne ay kayit di wone ne li ñuy def yëpp dañ koo teg ci yoon ndax ñoom jàpp nañ ne seen mbootaay bii lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek daa am lu koy justifier. waxtu yi ñuy nekkee ci coow loolee ci wàllu njàng njàngaleem njàngale mi fële ca euh, kon Kaolack ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gone ya fa nekk ca daara ya rawatina euh, ca cycle secondaire bi la leen gën a sonal moo di ay euh, grossesse ëmb yooyee nag ñoom am ci loolu njàqare ndax gis nañu ni dafay gën di bari ci xale yi ba waral ña fay taxaw it di yër seen wér-gu-yaram ñoom élèves yooyu daal yi sàkku ci nguur gi ñu gestu leen balaa mbir mi nag di ëpp doole di sàpprera ma fa woon juróomi weer ginnaaw ba année scolaire 2015 2016 tàmbale téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti élèves ëmb nañu te l'école ya nekk département de Kaolack mu mel ni at mu nekk li mu élèves yi ëmb ëmb bu teel day gën di yokk grossesse yu bëri yooyu ñu gën ko ràññee ci élèves yu nga xam ne ñoo nekk diggante sixième ak troisième. constat ci biir constatation générale boobu nag dinañ am ay cas de grossesse cas yi day varier parce que comme si région bi ñu nekk dafa am ñu ne ci àll Euh, ñiy jógee ci Kaolack commune et cetera dina dem ba mun na mat ay juróom-ñaar ci ba jàpp fukk jëm kaw yoo xam ne ni buñ ñëwee ci semaine bi. ci loolu dañ ci taxaw def seetlu bu ndaw ci ñetti at yi dinañ gis ne 2013 2014 muy daaw jéeg ci exemption yooyu noonu am nañ ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ay gone yoo xam ne dañoo ci ñooñu noonu juróom benn fukk ba yépp dañoo nekk diggante sixième ak troisième attention mooy bu fekkee ne daaw jéeg juróom benn fukk rek ñoo nekkoon ci premier cycle bi daaw am nañ téeméer fukk ci premier cycle bi lii gën a ëlëpp xelu askan ba yeewoo saalum mooy yenn ci gune yooyu am na si sax ñoo xam ne ñoo ngi ba tey école élémentaire sëy yu yi ak grossesse non désirée yi ñoo yokk lim bi li mu jur ci wàllu wérgu yaram di ñu bare ci élèves yooyu dañu leen di césarienne. am nañ sax ay gone yoo xam ne ñaar ñoo xam ne ñoom école primaire lañ nekk. donc daaw gis nañ juróom fukk gone yoo xam ne nii dañ leen defal césarienne te bokk na ci li tax ñuy ñàkk gone yooyu noonu ëmb yi. ak sëy yu teel yi. ndool perte des valeurs influence des médias ak li Kaolack doon célébé yoon bokk ci li jur situation bu ni mel li jàmp tey mooy teel a yee gone yu jigéen ñi ci wàllu sexualité ci gis-gisu directeuru inspection médicale de l'école bu Kaolack. xale yu jigéen daal ñooy njëkk am vie sexuelle xale yu góor yi loolu moom lu leer la ndax euh, boo xoolee li jànkat yi wane mooy juróom-ñeenti at la ñuy commencé am vie sexuelle mooy ñu fexe ay makkaan ay kuréel yoo xam ne nii danañ mën a di waxtaan ak xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi bala ñoo dugg ci yooyu. ëmb yu teel yi rawatina ci xale yu jigéen yi nekk diggante sixième ak troisième tàmbale indi njàqare ca kaw Kaolack ndax bariwaay ba jot na nag kilifa yi taxaw ci aar gone yooyu ngir mën leen wattul jafe-jafe yooyu. politique euh, gannaaw euh, kon euh, lu jëm ci campagne ko wi ji ca Diourbel ba moom ñanga ca foofee Aminata Tall ak Moustapha Cissé Lo ñoom ñoo fa mobiliser ngir waaw ji jël ndam li bisub 20 mars ci assemblée générale yu ñu mën a méngale ak i meeting diggante Diourbel ak Mbacké ñu fekk ji fa Mohamed Jo Diop vice président bu assemblée nationale tamit doon président bu parlement CEDEAO woo ay ñoñam ci ab assemblée générale boo xam ne ngir monter comité électoral départemental waajal li nga xamee ne mooy référendum bu ñaar fukki fan ci weeru mars bii di ñëw ab ndaje boo xam ne parti bokk ci benn Bokk Yaakaar ñëwoon nañ ci Moustapha Cissé yëkk yëkkati kàddu joxoñ baaraamatuma tuuma opposition bi nga xamee ne dañuy nax askan wi ci baat bi nga xamee ne mooy mbirum laïcité. tey man nga diine ji nga dem nga def ko waaw kon yàllaa ko ci defal ku def seetal diine ji nga bëgg def ko ëllëg yàlla mooy atte te loolu am na Sénégal am na ñu gëmul yàlla am na ñu gëmul yoneen am na ñoo xam ne ñii lii la ñu gëm kon lool lañ ni nañ ko dëggal andi na coow mais dindi nañ ko léegi nañ bàyyi coow diwaan bu Jurbel tamit responsable yi fare APR ak ñi nekk ci benn bokk yaakaar ñoom ñoo joxante loxo. ci ab assemblée générale bu niroog lool ak meeting. oui pour le référendum du mars. ma wax ne condition wuy bi muy wuy bu neex mooy ñu àndandoo ko ñun ñëpp nekk benn Dame Diop il était absent empêché ce jour-là. wax na ma ni su sañoon ñu def une assemblée générale qui consacre l'unité du parti et l'unité et les retrouvailles avec le Benno Bokk Yaakaar responsable ci APR ci diwaan bu Jurbel Dame Diop tamit rafet na bu baax a baax ndaje mi nga xam ne gëjoon naa am ci kàngamu Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci département bi référendum 20 mars bi di ñëw responsable yi APR nee nañ ndam rek la ñuy am ci biir région bu Jurbel la teg suñu baaraam mais doo tax ni référendum bi étape la étape la boo xam ne dafa yóbbu ci yeneen échéance mais étape la boo xam ne dañ ko war a jox président Macky Sall pour mu accélérer la cadence dans la réalisation de ses projets au Sénégal loolu moo tax ñun waa Diourbel ñu war a gën a mobiliser wu gën ànd ci loolu. assemblée générale bi nekkoon ci diwaan bu Diourbel Malick Fall maire bi teewe woon na ko moom mi nga xam ne ci fan yi ñu weesu la ñëw wàll si ci parti bu président la république. ki nga xamante ni moom moo di ministre bi ñu dénk wàllug euh, ndaw ñi moom ma euh, Mame Mbaye ñaa moom nag daal nay euh, yëkk ci ay tuuma teg ko ci kaw yenn ci ñoo xamante ni ñu ngi di ay kilifa nekk ci opposition bi mu ni daal xelam dafa tey ci lëngoo gi ci diggante forum civil ak Idrissa Seck waxtu wa mu ne lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards moom njiitu réew mi war na ko leeral ma Sarr ak maître Mame Adama Gueye joxoñ na leen muy sàkku ci nga ni moo di njiitu avenir ñu bëgg euh, mu taxaw rek def ay compte ca Sénégal 92 euh, leeral ko marsal mu ni euh, kër gu ñu ko joxoon daal da ko luyee loolee it nguur këru maison de fonction boo xam ni da koo jëloon def ko luyaas loolee la wax ci ay mbiram moom may ñaa nekkoon kon ganuk quotidien bi di l'enquête ci talaata ji dem ba kër El Hadj Pathé foofee askan wa moom la coow li di bari jàppal fii jàppal fële mel na ni ñoom nee dañu leen fàtte ci yëf yi ndax tey jii euh, bari na tolof tolof yoo xamante ni ña nga koy dund te gisaguñu ku leen ko safaraal Salif saw mu fa àggoon. kër alaaji paate bërëb bi li fi yeewoo ci doomu aadama suba gi nekk ëpp nañu ñetti junni mu ngi féete kër masaar village bi yaatuwaay ba ëpp na ñeenti kilomètre carré fii li fi gën a sooxe mooy ñàkkum ndox branchement yi fi doon am ñu naan sociaux ndaf loolu lañu soxla branchement sociaux parce que di fi nekk population bi dañu dañu pauvre donc il faut que ñu dimbale ñu pour ñu am ndox fi mu nekk nii ci teen bi la ñuy mujj di jukki di tànk ci la ñuy fóot ci la ñuy des am na ñoo xam ci la naan am ndox mu sell jafe-jafe la fii waaye du benn jafe-jafe bi ñu fi yeewoo li nga xamante ni mooy maternité amuñu ko poste de santé di bërëb bi ñuy fajoo daal tur rekk la am dara amu fa daanaka li gën a garaawati mooy fi ñuy fajoo ak ndoxu taw yi ñoo lang. ci poste poste de santé bi amul maternité ñoom ñi ngi góorgóorlu ñu ngi def le maximum waaye nag tam nañ leen jàppale renforcer leen def fi maternité bu mag personnel bu doy. ndox mi aussi ni mu jegee poste de santé bi xam nga loolu moom ndax taataa ndox rek déjà dafay indi ay feebar. ça ne peut pas contenir la population de Alaaji Pathé vous avez vu il y la, la population il y a une très grande densité de population. bërëb dafa tëju. àgg fa yombut yoon benn ba mu am dafa xonk ñu ñuulal ko la askan wi fii di sàkku balaa ñuy xaarandi loolu am dawal dawalkatu oto dawal dawalkatu saret yi ñoo ciy buuxante loolu nakari loolu ñuy jëfandikoo ñaari moyen de transport yi lee yoon wi dañ ko def mu ñuul kuk ñëw ba jub alaaji ba ci buntu alaaji paate ñu dagg ko foofu yoon wi bu fekkee dëkk bu amul yoon du am benn accès boo xam ne bii bailleur de fonds yi danañ ko mën làmp yi làmp yi leerul canalisation bi ñu doon wax 2016 la ñu waxoon ba léegi gisaguñ dara. parce que fii même jigéen bu matoo guddi. pour nga am oto ak yoon boo mën a jaar pour yóbbu ko yëpp ay problème la. marché bu baax amu fii foyer des jeunes amul kër Alaaji Paate dafa tumuranke li nga xamante ni mooy ay bagages yooyu askan wu ne war na koo soxla dañ leen fàtte la ñu wax ñoom ñi nekk fii. marché bi ay mbaar la mbaar yi day daanu suñu kaw bu nawee te ndox mi suñu kaw lay def direct. suñ fi bëggee ñëw dañuy sonn parce que amuñu lu ñu indi léegi ay sareet la ñuy dugg léeg ñu naan daanu ci sareet man sama ñaari loxo yëpp a damm. moom moo fàttaliku ne ñëw na ci ron niim gii ron niim gii ci buntu kër Alaaji Paate fii la toog ne bu ngeen ma jàppalee bu soobee yàlla danaa faj seeni soxla 2012 ba léegi amaguñu branché la guñu sax benn tiwo. fii lu courant yi foo sànni sa gët seen leen ñuy def li ñuy woowee branchement clandestin. li nga xamante ni mooy ñàkkum kaaraange it gaañ dañ koy waxtaanee fii bu baax a baax ndax daf fee am lii di police lañ bëgg ñu tabaxal leen fii la ñu wax. àllu ba ñuy caxat caxatee fële kon ca bori Kolda rax ci dolli yenn saa yak daay daal di cay dugg loolee bokk na ci li nga xamante ni tey jii tax na euh, ñu am tiitaange foofee ca bët saalumuk réew mi ngir nag ñu xool nu ñu ko mën a jëfandikoo ba bañ koo yàq euh, ña nga taxaw ñoom ñooñee di ay acteurs yuy dugg ci biir àll bi amal waxtaan ngir ku ca ne war a mën a xam luy sa wàll ci yëf yi Abdoulaye Diallo. réserve forestière yu mujj ci Sénégal bi ñu wottuwul léegi ñu jóge fii fu mu ne nii ni ñuy saax-saaxee àll bi dafa jéggi dayoo ñoo ngi taal ay daa fu ne ci biir àll boobu li ciy gën a bon mooy suñuy bant yi ñuy dàgg te di leen jëmee ca Gàmbi ngir xeex yooyu jafe-jafe ñi fi ngan ko wàllu fore ñoo fi woo bépp jarafu gox ak ñi yëngu ci biir àll bi ngir weccoo xalaat ci arrêté bi dogal wàllu ni ñu war a jëfandikoo àll bi. beneen bëgg-bëgg aussi mooy la demande parce que ñoom waxuma seen xaalis bi ñu gagné mais dañoo am devoir fexe këriñ ak matt bañ la ñàkk Sénégal parce que tey bu ñu xoolee pour cent yi nga xam ne moo ñu liggéey si si kër yi du ko amul moo ko joxe kon donc loolu tey su manqué rek coow day tey ñaanu yàlla tey tey bu ñu toogee dañoo Dakar amul matt amul këriñ coow day bëri kon dinañ fexe ba Dakar di am matt ak këriñ ak yeneen régions yi population yi nga xam ne ñoo ko liggéey kenn ndóol wàññeeku donc ku nekk mën sa gis sa bopp loolu mooy politique bi xam ne moom la président moo ñu dox ay jéego ba ku nekk fa nga nekk di nga bugg si àll bi encore te du bi ñu àndee ak dogal bi ni mel waaye exploitant forestier yi dañoo tiit lool ci liy xew ci deux cent quarante et un kilomètres yi nekk diggante Sénégal ak Gambie. waaw suñu diggante Gambie nag euh, wax dëgg yàlla doy na waar ndax ëpp na loxo mais affaire la boo xam te ne ñëpp ci war a jàpp parce que jàpp naa ne ñi nga xamante ne. ñoom ñooy population yi nga xam ne ñooy jël bant bi di traverser frontière bi di ko yóbbu population yooyu war nañ waxtaan ñoom sensibiliser leen waa dëkkandoo nag jàmm moo ci gën te Gambie li ñuy def dañu war a jàppale Sénégal. jafe-jafe yooyu yëpp ñoo tax ba wàllu aar àll bi nekk lu war a soxal ku ne ci biir askanu Sénégal. leen lu ñu waxtaanee ca Sédhiou émigration clandestine bi ngir gone ya teg ko suuf la ko waral nag lorange yoo xamante ni def na ko diggante Pakaaw Sonkudu jàpp Fuladu loolu nag tax na ñoo xamante ni kon ay émigré la ñu woon ñëw nañu wax fa ak gone yi gone ya foofee ay temps nag euh, gox bu demee ni Libi bokk na ci la ñu gënoon a teg bët tey jii ngir ñu toog am nañu taxaw ngir jàppale leen Bakary Konté immigration clandestine dafa am doole ci région bu Sédhiou jàkka Fodé nekk ci Sonkodou Pakao ak Fuladu ñoom nag ñu ngi ci ay jafe-jafe yi bëri ndax ci si région bi am na ay ndaw yu bëri yoo xamante ne ñu ngi faatu ci Libye fii nag ci diwaan bi ñu bëri ñoo xamante ñu ngi dund Espagne ñu bëri delloosi nañu fii ci diwaan bi ndaxte ñu ne am ñu liggéey ci diwaanu Espagne. parce que nous avons besoin de les gens qui sont dans le gouvernement pour aider nous parce que là en Europe maintenant il y a pas dañu bëgg gouvernement bi jàppale ñu ndaxte Europe mu nekk nii amatul liggéey dañuy sonn loolu suñuy rakk itam dañu bëgg a dem Europe te ñoom boo leen waxee duñ la dégg ndaxte dañu bëgg a ñëw ñu ne fii itam amul liggéey moo tax Prodac bu fi ñëwee nag ñu dinañ des fii ci diwaan bi ci Sénégal ñu mën a liggéey. vraiment c'est tellement difficile de parler avec lui parce que quand il dit reste à d'ici il dit que a pas de travail y pas de moyen pour rester ici. waa Prodac ñoom nag bu ñu leen informé ñoom nag dañuy ñëw ñu ne dañu bëgg investir ci douane bi daal di fixé ndaw yi pour bu ñu dugg gaal yi ba tax na ñu ngi war a aménager 30 hectares. tey ndaw yu bëri yu région bi yu zone bi ñu ngi taxaw li bi di xaar ban occasion la am pour mën a dem Europe mënuñu ko mënuñu dem mënuñu ñibbisi muy problème bu bu daw yaram parce que témoignage yi ñu gis vraiment dañoo daw yaram déjà am na kenn si ñoom ku ñëw ku nekkoon Europe ñëpp si parce que foofu amatul dara euh, maanaam si kii euh, mille mille euros boo ko gañee Europe euh, mille euros yooyu da nga siy dépense bëgg bëgg si fay location bëgg si fay transport lu lay desee du 100 euros. agence nationale aquaculture ñoom tam ñi ne dañuy xeex loolu nga xamante nekk na immigration clandestine fii ci douane bi ñoom nag bëgg a ndaw yi nekk fii ci Sonkodou. salon de l'agriculture fële ca Paris Sénégal di exposé innové ak produit yu bari euh, loolee joriñ ñu dénk wàllu ko càmm gi Aminata Mbengue Ndiaye rafetlu ko euh, gis ni nag war nañoo gën a mën a def jéego ci wàllu meew ak ndawal euh, fexe ba nag li ñuy am ci réew mi di doy askan wi mu gis ni ponk boobee ngir ñu àgg ca faaw ñu yokk effort yi assumen cubb moo ñuy toppal salon bi salon international Sénégal ubbi fa marché bu ndaw benn benn jëwriñ ji di xool produit yi nga xam ne moom la fa suñu réew indi ci géej la jóge dañu ko wuti ci garab yenn saa yi dañu ko liggéeyaat ba mu mën a jëriñi ñëpp Sénégal indi lu bees lu wuute ci buntub jongante bile ci ku gën a baaxle. Sénégal tamit desul ginnaaw ci loolu parce que tey ci wàllu jën bu ñu gisee li nga xam ne moom la jigéen ñi wone bu ñu seetee tamit ci wàllu céréales. li nga xam ne moom la ñu wane loolu dafay wane ni que objectif yooyu jege nañu ko. lu bees tàq ci suñu liggéey wuute loolu waaye mu mel ne moom suñu bopp gi des na. indépendance neex na waaye indépendance bi gën nag mooy bu dund bi tey Sénégal mun naa ni bu dee soxla nañu téeméeri téeméeri litre bu ñu soxla bu ne mun naa ni euh, cinquante pour cent yi juróom fukki litre bi ak benn sénégalais yi ki seen bopp ñoo koy joxe. te anam yu métti la ñu koy joxee ndax suñu jur googu nga xam ne ñooy am 3 litres de lait par jour wala 1 litre par jour ñoo ñuy jox loolu. góorgóorluwaat tuuti ubbeeku ci geneen ko anam ngir am li ñu bëgg. programme yi ñu am ci wàllu insémination artificielle maanaam ci wàllu yokk deratu jur gu jur gu local gi nga xam ne moom la ñu am. boole ko ak jur gi nga xam ne duñu leen di jëlee bitim réew di leen dugal si ñuy am ay vingt yii di am ay 30 ba 40 litres de lait par jour yaakaar nañu ne loolu bu dakkul. fii ak 10 ans objectif yi ñu bëgg a atteindre ci maanaam man suñu bopp ci wàllu meew ak yàpp dinañ ci yegg ci wàllu ganaar mun naa ne daanaka yegg nañ ci parce que actuellement importé wuñu ganaar depuis 2005 te ñu ngi am suñu pro li ñu soxla ci suñu bàllu consommation locale ñu ngi koy am. moom sa bopp ci wàllu lekk mooy lu gën def ko mën a tax ba doo tënku ci kenn. ci gis-gisu yenn ci ay borom xam-xam yegg fa yoon wu sori la. gudd lool lëndëm këriis gëm-gëm rek mooy tax nga jëm fa Assoumane Thioub wax na it moom a jëwrin ji foofee ci càccuk euh, jur gi euh, fii ci Sénégal Aminata ngi Ndiaye ni ngir décourager saay-saay yooyu euh, faw nag charte nga xamante ni wote nañ ko fi ñu koy doxal rawatina daan yi ci sàcc yooyu saa suñu leen tegee loxo ñu teelu ko moom ministre de l'élevage ci jur gi moom problème la yaakaar naa moom la président de la république jëkk a xeexal après 2012 tey code pénal ak code de procédure pénale renforcer nañu peine yi maanaam yokk nañu daan yi nga xam ne du ñu koy daan sàcc yi te actuellement ñi ngi jàpp nag sàcc yi parce que fan yii rek ci biir région de Kaolack jàpp nañu fa jur gu bëree bari ba seeni boroom ñëw jël si ko ba euh, defe naa foofu vraiment ka ñu fa jàpp moom euh, kilifa la woon gu mag ci ci wàllu woowu mais waaw waaw waaw loolu loolu dina mas a jeex ku ci dem bis ñu tëj la juróomi at wala ñu tëj la fukk boo génnaatee yaakaar naa di nga tal leneen du dem ak di dellu. ñu des kon ci wàllu ndawal loole yóbbu ko ba dibiteri yi am na ñoo xamante ni loole kon euh, la ñuy euh, bëgg di euh, dundee am ñoo xam ne nag ñoom dañ caa xaw a tiit waxtu wa ñuy wax ay tension que yu ni mel loolu nag taxut mu découragé ñenn ñi borom dibiteri yi tam seen i pexe ngir kiliyaan yi di wéy di jaar ci ñoom di leen seet si reportage bu Mame Birame Diouf la doon ay bërëb yuy dalal ay nit ba léegi donte sax ñi fiy ñëw wàññeeku nañ dundu gu cher gi yàpp ga ne ñu koy defaree di tey xel mbala sax toggin ba di des li nag tax ba ñu bari jàpp ni buggatuñu fa dem. graisse bu bari bi baaxul c'est pas bon baaxul dibiteurs yi moom boo boo bëggee boo bëggee dëgg-dëgg moom moom moom vraiment wóorul quoi c'est mën na indi feebar. ndawal gi togg ko bu baax. bu ñu koy lakkilit ñu jël matuwaay yu mat sëkk ngir it buñ ko lekkee mu bañ a am jafe-jafe ci wërgu yaramu nit ki doon na liggéey gu Mamadou di amal bis ku nekk waaye it ngir client mi di ñëw saa su ne. bu dee guddi gi tamit ñu lekk ko rek bëgg a tëdd day metti nag franchement parler tamit euh, du ñu ay médecin mais quand même ñu ngi fréquenté yenn médecins yi. yàpp bi foog nga lakk ko bu baax a baax a baax pour ges gi mën a wàcc waaw mais yenn qualité yi sax nit ñi duñ ko bëgg parce que dañ koy daw. graisse non graisse moom euh, non parce que bon graisse mën naa ko lekk parce damay damay xam nga am na xar yoo xam ne euh, des fois nga gis ritax ritax si yeneen dibiteri yi moo tax bi ma choisir fii depuis bi ma commencé fii ba léegi changé wu lekk ñaareel lu bari ci ndawal gi graisse bi sax di ci ànd faral di jur nag ay jàngoro lu ci mel ni cancer mala sax AVC yi li tax ba soxna si ne moom du fa dem di lekk ndawal gi ndax wër gi yaramam jaral na ko lu ne. jégalu ci élément boobee na mu daggee ci wàllu euh, dibiteri yi lañ doon wax xibaaru bitim réew kon ca la ñuy ak si ak Aïssatou Pay Fall moo ñu ko tënkal. mu mel ni kon Aïssatou Pay Fall euh, niñ ko waxee lañu yàndal àndal ci wàllu kon euh, xibaaru bitim réew ponk yu ca bari kon la ca gën a yitteel wi loolee lañuy xëy ànd ak moom Aïssatou Pay Fall. ci talaata gi nag ñu koy wax Super Tuesday ca États-Unis muy ay élection yu mag ca Texas ñu bëri ñi ngi mobiliser wu ngir communauté hispanique bi voté leen ndax seen ay voix lu am solo la ba tax na ñi ànd ak Hillary Clinton di def seeni kéemtalaay kattan ngir ñaax leen ñu voteel leen. taxawaayu ñi ànd ak moom nag seeni mobilisation dina tax électorat googule nga xamante ne ay idées conservatrices la am ñu voteel parti démocrate bi. seen ay idée day dawloo hispanique yi ndax seen gis-gis méngowul ak ñoom ni gisee wàllum immigration Ted Cruz nga xam ne texan la moom communauté hispanique bi bëgg nañ ko loolu ba tax ne seen ay vote lu am solo la ci Super Tuesday bi waaye nag ñi ngi laajte kat moo nar a mën a téye Donald Trump ci wàllum santé suñu sukkandikoo ci waa Institut Pasteur génnewaat nañu leneen lu bees ci wàllum virus Zika dem nañu nag ba gis ne virus bi mën na indi yeneen i gàllankoor ci wér gi si wér-gu-yaramu nit ki lu ci mel ne ay affection yoo xamante ne dinañu téye ay cër maanaam ñu koy wax paralysie te bu boobaa it dina si def leneen itam mooy it dootoo mënati noyyeeti bu baax loolu nag ñu koy tuddee syndrome Guillain-Barré ci 100 pour cent patients yi nga xam ne am na ñu feebar boobu le gis nañu virus Zika si seen yaram ba tax na mu nekk fu mu toll nii mbir bu doy waar Ghislaine Dupont ak Claude Verlon mi nga xamante ne woon ay journalistes yu ñu faatoon la ca daal ci 2 novembre 2013 te ak mi faatoon leen ba tey kenn gisagul ñu defoon ñaaw teef yooyu yooyule mu mel ni nag kenn bëggul wax ci mbir mi enquête bi demul dikkul ñi di dem ba jaaxle mu mel ni nag enquête bi dafa am mbirum politique mi ci lalu autorité française yi nag dem nañu ba jël ay documents yu bëri déclassifié ko yoo xamante ne ay secret défense la woon am sax ay paragraphe yoo xamante ne dañ ko effacé lu toll ci 75 documents ñoom itam ñu gis ne dafa sensible torop te fi mu toll nii nag document yooyu yëpp kenn dootu si mën a jotati xibaaru kon bitim réew diggante élection santé ak li nga xamante ni moo di euh, lu euh, jëm ci euh, wàllu karange lu jëm ci wàllu tàggat yaram moom dañuy wax ci centre sportif bu bees bi ñu duppee club yenn fële ca Matam loolee nag ñu taxawal teg xeex wu jëkk wi milliard ci suñuy koppar war na caa dugg ki nga xamante ni moom moo nekk ca ginnaaw di footballeur professionnel sénégalais bi Ibrahima Iyane Thiam moo xam leen ni béréb initiative la boo xamante ni euh, ndaw ñi nekk ci àdduna bi yépp ku ca ne bëgg ko war nga caa mën a yëngu andi ceeg Pape Fara ñi nga Pape Khali Ndiaye projet bu am solo ngir développer football bu Sénégal ñu fa yéene liggéey nag ay infrastructure yu mucc ayib centre boobu nag dañ ciy jàng boole ci def wàllu tàggat yaram ñu tuddee ko nouveau sportif football club IAN ñu amal ko foofu ci diwaanu Matam. projet qui va se Euh, d'abord on va commencer par la. dañu koy door ak académie bi mu laaj nag benn million ak ñeent fukki junniy euro dinañu taxawal ñeenti terrain ak it benn centre goo xam ni xaalis bañ cey jëlee dañ ko mën a dugal ci biir académie bi. joueurs yi nag jóge wuñ rek Matam ndax am na ku jóge ca Bignona keneen ca Louga ñeneet it ñu ngi jóge ba ca Dakar am na sax ñaar ñoo xam ni ñëw nañ jóge ci réew France. il a on a aussi deux joueurs qui vont venir en France. ndongo fa nekk nag rafetlu bu baax a baax bi la xalaat ndax nag dina mën a tax euh, seen gént ñu mun koo amal. Ah, dina baax trop dina baax trop man moom dina baax si man trop trop trop sax wax na moom jànguma français mais bu ma commencé intelligence léegi maa ngi commencé làkk français ndànk-ndànk donc ordinateur mun naa si utiliser lu bëri. ah xalaat bi nag dina tax nag mu gën a développé lii di dëkk bi looloo tax nag ñii di autorité yi daal di koy rafetlu. ci fii tey ñu gis ko muy centre bi nga xam ne dañ ko fi bëgg a tabax centre bi ñu xam ne ay xale nar nañ fi ñëw di football di jàng aussi pour mën a jóg footballal Sénégal mais mën a dem ci bitim réew aussi andi njariñ andil ko seen i waajur ko Sénégal yëpp parce que defe naa ne xale yi bu ñëwee football fii ëllëg bu ñu amee njariñ dem ci bitim réew seen xel dina nekk ne ah ñun fat fi ñu jaar ba am lii dafa am kenn koo xam ne dafa meloon ni ñun waaye dafa dellu Sénégal def li ci war donc. xeer bu njëkk bi nag ñu teg ko ci teewaayu autorités yi ak partenaires yi. centre boobu di def wàllu tàggat yaram ak njàng dina gën a yëkkati sunu football bi nga xam ne dañoo am jafe-jafe gagné ci diwaanu Afrique. Fafara ñu làmb yéen i la ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fu ngeen gis imam Mbaye Niang ne leen ko doomam ji lakk na dëkk bi Mame Mbaye Niang ministre de la jeunesse xëy na xar réew mi ñaar bi leen enquête dina kay moom monsieur le ministre le journaliste enquête yi xëy dalal lu ne wax na ko fa wax na ci référendum yi waxi maa waxoon waxeetu Macky Sall ji mbirum yi dir sa Seck Omar Sarr maître Mame Adama Guèye du dara lu mu bàyyi te ku mu ci jàpp ba bàyyi la rek ak la mu lay wax bu say mbokk xëyee xoolaat la nee na ci ci ñoom ci kenn ku leen mën a jox leçon de morale Mame Mbaye Niang ne ñu dafa am ci réew mi ñoo xam ne dañuy mbub boo boroomi xam xam-xam maanaam te boo xoolee seenu doxaleen ba seppali ko ay politiciens dëgg la ñu Mame Mbaye ministre de la jeunesse ne journaliste enquête dina kaay yi am nañu fare ci kujje politique gi di ay opposant dem nañu seeti ay consortium ngir ñu jox leen xaalis bu ñu mën a financer seen campagne bu ko defee bu ñu gàñee jox leen seen wàll ci pétrole ak gaz bi feeñ ci Sénégal bu yàggul Mame Mbaye Niang ne lu waay di def na leer ndax gars bi Macky juróomi ñaar fukki fan ci weeru mars yi journal bi nañu constitution bu yees bi bu ñu ko méngalee ak constitution bi ñu fi móoloon atum 2001 ba mu koy defaraat am na ci fukki article ak juróom-ñett yoo xam ne daf leen jooyandi ci fukki article ak juróom-ñett yooyee fukki ak ñett la mu ca def mi ngi ko jëlee ci li ko commission réforme institution santoon le soleil xëy nañu du ko taay jël constitution bu yees bi xëyee ko yéene bi nañu di langue nationale ba ñu xam li ñu wund ci constitution bi mu leen bëgg a wooteloo laas nañu moom njiitu réew mi fas na yéene sol aw dàllam dugg ci këri diine yi ci réew mi fu ci nekk mu dem fa waxtaane kilifa diine yi ci benn ponk bu nekk ci constitution bi mu di wàllu laïcité ministre de la république yëpp ku ci dul Mankeur Ndiaye ministre affaires étrangères yéene kaay bi nañu Macky Sall tere na la nga génn réew mi li mu leen sant moo di wooteloo mooy lan grand place nañu liñ doon laam-laamee mu di ndax référendum yi dañu koy tuxal am déet ndax référendum yi dana am am déet yéen kaay bi nañu Macky Sall tëj na wax ja leeral na ko démb tëj na wax ji ne leeral na ne référendum yooyee ñaar fukki fan ci weeru mars gi ñu ko jàpp ca lay am populaire nañu moo taxit nee na gàngooram mu di ñi mu àndal jàmmu jeex na jug leen ñu waajal Macky la door na campagne li ko nar a dal moo Macky Sall moo di dëkk bu mu yegg bëgg a yebbi bagaasam ngir campagne fa waa dëkk bi ne ko jaru ko sa waa ji Moustapha Diop jaar na fa libération nañu xale xaalis Moustapha Diop ministre microfinance yaram wee tànk xëy na séq waxtaan wu yaa ak journaliste libération yi Moustapha Diop ni ñu woote wëy ci référendum yi moo di woote yokkute yokkuteg Sénégal ak lu dëgëral institution réew mi ñiy wër di wax naan nañu woote no Moustapha tudde leen boroomi xol yi jeex ak ñuy bëgg di fayantoo li mu xalaat ci ñoom wax na ko ci libération mu ne ñu li ko dalee Ndakaaru ba Koungheul fu ñu ci mën di dem jigéen ñi ñuy dajal li ñuy wax moo di Macky Sall sens ci Sénégal moom sensu Sénégal bi di Macky Sall Sud li mu bëgg moo di waxtaan dajale politique gi ak waa société civile gi société civile bi nangu nañu waaye dañ caa teg teg ci condition référendum yooyee la tribune nañu Macky Sall ca lay xamee lan lay jar ne bu ñu noppee ci référendum yi wuy ji yóbbul ko nooja bu booba Macky day toog gannaawam bandang gën a wéyal ak nguuram waaye bu ñu ca yeggee nooj yóbbul ko wuy ji Macky Sall day cogandaay benn tànk lay taxawee maanaam sursi lay nekk ba fekk ñu yegg ci législatif yi Walfadjri nañu fi mu nekk ni kay waxuma la moom Macky Sall waaye kuy mbokkam war nga koo jugal ne yëf yi naruta ci moom ñii ñi ngi koy sikki mu cib liggéey mu di chômage bi ci ndawi réew mi ñuy jëm ci référendum nangam ñenn ñi bu buñ ca yeggee noo la ñuy wote syndicat yi sëkkatal ko ciy ñaxtu ak i revendication ak i géraw yéen a kaay bi nañu Macky Sall mi ngi ci guddi gu bët setegul na set wecc ñu dali ci l'observateur Tambacounda benn xale bu toll ci juróom-ñaari yat moo fa jël fetaluk baayam di ca fo ba fetal ca rakk ja rakk ji toll ci juróomi yat mu faatu Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy euh, jaajëfal mbokk yi gërëm leen yéen ñi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah dana dellusi si 19h30 ak 20 boobu permanence di ngeen ànd ak képp si càmm ngir xam nag ngeen di yendoo ak seen télévision Futurs Médias euh, di leen ñaanal kon bëccëgu jàmm.